Fia ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu lay dalal jàmm fii ci Kawtef Sénégo. Sénégo maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di fi teew ak ñoo xam ne rek ñu ngi koy safoo di ko ndamoo waaye tamit di ko tiitaroo. yàgg nañoo sàkku jàkkaarloo ak yow waxtaan ak yow si li nga xamante ni moom mooy actualité euh, réewum Sénégal rawatina nag si li nga xam mooy milieu showbiz ah jamono ji nag gis nañ ne artistes yeeg ñu ngi am ay xéwaloo yow nag nga nekk si milieu bi macha allah nekkoon tamit danseuse juga fa nekk animatrice mu doon euh, mbir moo xamante ne peut-être di nga si mën a waxtaan déjà balaa ñoo tàmbali kan mooy Fia. waa Fia dafa doon xale boo xam ne xale bu am jom am fulla am fayda ci boppam respecté boppam waaye tamit respecté ñi nga xam ne nag ñooy ay waajuram ba tax na nag am na yoo xam ne kenn du ko ci dégg waaye itam kenn du maanaam kenn du ko ci gis daal comprend nga kooku mooy Fia ki nga xam ne nag liggéey la xam gëm liggéey gëm boppam respecté boppam aussi xam moom mooy kan te nit balaa ngaa baax il faut nga xam sa valeur te Fia dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo xam seen valeur d'accord nga nekkoon li nga xamante ne moom mooy fecc kat nga nekkoon ci millier bi ak milieu dance nu mu nu mu méttee euh, lu nekk lañ lay taxé euh, tey jii lu tax nga dem déjà lu la dugaloon si li nga xamante ne mooy milieu fecc mi. waaw daanaka fecc moom lépp ci aar bi la rek muy kiy fecc muy kiy làmb muy ki nga xam ne nag day def ay tànni biir lépp daal ci aar bi nag ku lekk yaay xam nooy bayee sa waar affaire bi tali la rek ku nekk na nga jàpp sa yoon rek daal di dem man loolu laa gëm daanaka aar bi moom lu ne ngi ci biir dangay lan moo la lan moo la poussé woon nga dugg pour nekk fecckat. parce que loolu sama kii la sama passion la man maa ko bëggal sama bopp. dafa nekk loo xam ne lii man maa ko bëggal sama bopp te man dama cee gis sama bopp te li ma ci bëgg nag neexee yàlla suñu borom dinaa ko am te dinaa ko gis. ba tey yaa ngi fecc. ba tey maa ngi fecc ba démb rek maa ngi joué. Mhm. d'accord mu mel ni ne ni nga doon génnee bu njëkk ba ak léegi nii dafa xaw a wàññeeku. non ba tey pourtant moom la rek ba tey ah, xam nga liggéey bi dafay toll foo xam ne fii. dootoo am temps pour toog di wax wala dootoo am temps pour génn di dox yenn yi moo tax nag fan yii man xam nga mooy loolu ci liggéey bi laa nekk gëm sama bopp daal man daal maa ngi ci fecc mi daal. Mhm. Fia Jig Jig Saay ñu gis ko ci wàllum animation Fia di animé Jig Jig Saay arrêté waat gisatuñ ko Fia daal mu ngi ci dans toutes les sauces. waa Fia moom muy femme douce métier parce que liggéey moo ñu war te liggéey man moo ma fi indi kon nag lépp loo xam ne rek dama koy liggéey fii ci dakaar Ndiaye bii wala. n'importe quoi n'importe où aussi fépp foo xam ne rek yaakaar naa su ma fa demee damay am liggéey boo xam ne tubarfakal la macha allah ñëpp dinañ ma ci naw man dama koy liggéey waaw. na rafet rek macha allah na rafet rek fecc mi moom tubarfakal la macha allah comme ni nga ko waxee rek da nga ci dégg lu ne dañ lay dëkkal lu ne dañ lay waxal lu ne mais teewul nag yaa xam sa bopp am sa personnalité. te man fiyaa man ku ma xam ku ne xam nañ ma dama am personnalité ndax kenn du ma dégg ci wala yu bon te kenn du ma fekk ci milieu yu bon man liggéey rek laay def. ñu mel ni ne rek yéen feccikat yi comme ni nga ko waxee dañ leen di taxé lu nekk waaye n'empêche euh, taxul ngeen génn di di kaas wala taxul ngeen génn di démentir wala taxul itam ñu gis leen ngeen di génn di wax naan ñun defuñu lii defuñu nangam ci loolu moo tax ngeen toog euh, préféré nekk si seen ruq di def li ngeen def au lieu que ngeen génn di démentir liñ leen di tuumal wala liñ leen di takkal comme ñu naan feccikat yi ay doxkatu guddi lañu. waa man man sama bopp laa xam man yeneen feccikat yi man man loolu man concerné man la concerné. Euh, te gis naa ni man fi gisuma fi benn kër bu ñàkk fayda ci ñu ma xam boog am nañ fulla am nañ respect seen bopp ndax ku ci nekk boo xëy yaa ngi jël sa saak dem liggéey te ñoom aussi seen liggéey rek la ñuy def comprendre nga kon bu ñu leen taxé di leen wax lu leen neex ku ci nekk ubbi sa gémmiñ di wax lu la neex loolu xëy na ci kooku la nekk koy wax mais ñun liggéey lañu xam te ñu ngi ci ndax takk suñuy sër taxaw di fecc bu ñu par ñu jël suñu xaalis ñibbi suñu kër man Sofia boobu ndax ku ci nekk bokk sa bopp nga xam man sama bopp laa xam ak di ma xam ne moom laa gis ci yeneen fecckat yi gis naa ci daal ñoo xam ne tubarfakala macha allah doxuñu ci dara ñàkk fayda kon nag ñooñu nga xam ne dañuy wër di wax lu bon ñooñu xëy ñooñu ñoo bon xam nga boobu ne da ngay foog ni ñëpp bon loolu nag moo leen jàpp mais man Sofia du ma génn fenn naan leen damaa baaxam damaa bon ndax man ñu ngi gis li may def mosuñu ma dégg ci lu bon mosuñu maa dégg ci lu ñaaw man lu baax rek laay def ndax moom ma fi indi daan sama doole. moo ma fi indi te moom ma fi jëlee. sa ak fecckat yi. sama relation la ay ñoom Yirim ak ak ñoom seen. Hmm. waaw ñooñu moom ñun ñëpp c'est la même famille ñoo bokk ndey bokk baay ndey Yirim ku baax la barke Serigne Fallou Far Sarr aussi amul benn problème ndey jaay ba ndeyaa sama doomi ndey la ñooñu amuñu benn problème barke Serigne Touba ñoom liggéey rek la ñuy def barke alxuraan xale yaa ngi liggéey bu baax bilaay walaay. mais seen seen biir dafa mel dafa am siisante. dafa am soxorante parce que ñenn ñi dañuy bëgg di gën a fës di gën a ñu leen di gën di woo si yenn événement yi par rapport ak ñeneen ñi si sant bi nekk si seen si seen biir. si sant loolu di gisaguma ko ndax man moom gën naa sama bopp gëm boo xam ne man fu ma nekk ku ma fa fekk dangay ngay te loolu la yàlla dogal ndax damaa mën li may def comprendre nga kuy siis nag yaa xam ak sa siisu bopp mais man Sofia man ku ñëw sama seen dinaa la ubbil. muy nga playback muy nga bëf yaa xam loo ci mën a def man nag ñëpp nag jàmm laa ak ñoom mais sama liggéey man aussi man li may def dinaa ko def mais ba tey c'est la même famille rek que man damay dem fenn bëf ñibbisiwaat keneen ñëw sama seen bëf keneen keneen ak keneen parce que c'est la même te loolu lépp ci liggéey bi la ci aar bi la kon si santé bee xol bu bon yi jaru ko loolu amul sens. fecc mi dafa am ay ay ay ay li nga xamante ne mooy euh, ay pàcc ñii dañuy spécialisé en lëmbal. surtout ñi nga xamante ne macha allah dañoo jongoma ba yàq comme yow dañuy préféré di spécialisé si lëmbal ñenn ñi di spécialisé si baara mbay mhm. ñenn ñi di spécialisé si leneen yow fii yàlla lan mooy sa spécialité. waa xam nga man moom yàlla dafa dogal moom damaa mën lëmbal. Uh-huh. man moom tawarkal macha allah man fu ma yëngatoo ñëppay toog loolu la yàlla dogal man damaa mën lëmbal man maa si lëmbal bi yow boo ma gisee sa war nga xam ne sa Sofia mi lëmbal lay def. mooy yow daal lëmbal nga jël daal. man maa si lëmbal waaw. yow xanaa xamoo ma lan moo tax nga ñëw fi tey wël ma. Ah, damay ñëw waxtaan si rek. Ah, la wax rek ñëw waxtaan si nag bu fekkoon mënu ma lëmal doo fi toog di waxtaan ak man wala boog. coowal uh, Awa Banaya ak Ndeye Ndiaye yaa seen xeex bi nga xamante ne amoon na si tournage clip Benjamin fële ca Pikine ba clip boobu mujjuto antu coow loolu yëgoon nga ko. ah yaa ma ko wax vraiment. nga feccikat te yow nga ne sama doomu lay la may yëgu ma Ndeye Ndiaye bu génnee dem joué ji fenn dama koy yëg man su may génn dem fenn di joué Ndeye Ndiaye da koy yëg. kon kon est-ce nekk daal sa ngay def mais ay coow ak xeex yooyu moom man yëgu ma ci moom franchement moom yëgu ma ci dara. mais ni ko yëgee ban ban nga ci am lan lan lan ngay ngay wax ñaari fecckat yooyu parce que ay cousine lañu ñoo bokk seen bànnaya. waaw bànnaya moom bànnaya rek la mën a doon te xalit barfakal macha allah dañoo jongo ba yàqu ma li def man nag comme ñooñu nii wax dañoo xeexam dañoo xii man loolu man gëwuma yooyu gëwuma yooyu. gëwuma ne xeex yooyu. Ah, mais am na ñu ko ñu ne carrément xeex mais dëgg la de. mën naa am ñoom seen xelu bopp seen yaakaar bopp lañu yor man tamit sama basu bopp laa yor man yëguma tinuma déwuma diguma maa ngi fi toog ku ñëw fi nga may toog ku dem. mais lan nga leen di conseiller yow ni nga yëgee la lan nga leen di conseiller en tant que danseuse en tant que doomu ndeyu bànn awa awa bànn yaa comme no nday njaay bànn yaa comme ni voilà comme ni nga nekkee seen seen mag par exemple ñu ñu nekk sa gaayen ñoom ñu bokk seen bànd yaa nekk ay cousine kii di fecc si Wally Seck kii di fecc si di Diop te ñoom ñaar ñaari woykat yooyu nga xamante ne ay ay concurrent lañ comme ni ko fan yi sax di waxee amaana tey ji est-ce nekk loolu moo indi ñoom ñaar seen euh, li nga xamante ne moom mooy coow yi sew yi ñu am man de coow yu ñuy wax man yëguma ko te awak nay njaay aussi man gisuma benn problème bu ñu am ñoom seen diggante comprendre nga man gisuma fi benn problème man daal gis naa jàmm ak salaam bu ñuy dund muy rakk ak mag comprendre nga la même famille Bandeya c'est la Bandeya man loolu laa ci xam mais xaw ma xeex xaw ma xuloo yooyu moom yëguma ko vraiment yëguma ko yaa ma ko wax. d'accord feccikat yi saa su nekk dañuy nekk en mèche maanaam dañuy euh, déggante bu baax ak waykat yi euh, ñu gis ne kat Bambaly Seck dafa. wan ginnaaw si si ñenn ñi ñu ko jàngatee ki nga xamante ne mooy Wally Ballago Seck ginnaaw ba Mandiaye Seck wanee ginnaaw magam jooju Wally Ballago Seck dem si beneen label moom démb la signé contrat ak waa suba Subatel Music te Sidi Diop nga xamante ne fa la bokk nekk nekk concurrent wu li nga xamante ne moom mooy Wally Seck di mag si ki nga xamante ne mooy euh, Bambali Seck loolu ban jàngat nga si def parce que en tant feccikat yéen tamit am ngeen seen mot à dire parce que yéen artistes yëpp seen xarit lañ <laughs> man lu ma ciy wax moom bari na bariwul en tout cas ñun ñëpp daal benn lañ c'est la même famille kii dey tëgg kii fecc kii woy kii fecc kii neexal man loolu laa ci xam. man mu dem lu mu dem Subatel musique na mu ni. li Bambaly Seck signé Subatel musique te faram faramaare nekk fi ram ram daan nekk. ah kon dem na signé dem na signé ji ah doom day ko wax. parce que Serigne Sadou yaa ko wax. si milieu yooyu doo ko nag gis nga man. Ah. man du dugg fii jàmbur. te man duma dugg rukk jàmbur ndax sama rukk rek doy na ma. sama suufalal gee doy na ma kon nag su ma demee di dugg suufalalu jàmbur ba dara fekk ma fa man maa tooñ waaw. mais loolu noo ko gisee en tant que yow euh, ki nga xamante mooy porteur de voix en tant que fecckat parce que si milieu bi ngeen bokk. dëgg neexul ci milieu bi lañ nekk mais nekk ci milieu bi taxul nga xam lépp nekk ci milieu bi taxul nga dugg fépp. yaa ngi dégg pourtant nit a ngi ci milieu di fecc te man xaw ma leen te pourtant ñoom xam nañ ma voilà bi loolu kese la demee man bàmbaal yi ñoom ñëpp. ñoom ñëpp samay xarit lañu ñii samay mag lañu voilà man duma leen di ñaanal daal ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla nga nekk ci jàmm ak salaam. léegi tey li nga xamante ne moom mooy euh, kii di euh, Ngoné Ndiaye Guewel nga xamante ne euh, daan nañ la gis lu si ëpp bu yàgg nga daan nekk ci seenam di ànd ak moom donc nag jamono ji moom moo téye bësu lëmbal. nañ euh, suñu suñu yaay jooju moo ko tee ñu koy nuyu de passage moo ko tee nekk fële ci benn restaurant di ko toj ah waa di di def lu ñu mel macha allah muy fees dell léegi yow tey jii nii ñu gis ne da fa daan nekk yow en tant que suñu spécialisé ci euh, lëmbal lu tax gisuñu la ci li nga xamante ne moom mooy seenam ku ci nekk nag xam nga man amatuma temps man awma jot parce que man pagaay mbay lay àndal sama papa jooju maa koy nuyu de passage di nuyu waa dogu famille di nuyu waa. papa nga waay fan la la fan la la bàyyi leen seen papa papa yaay fan la ma motee papa yow mi toog papa yaay la la maa la wax loolu. ah déet bàyyi yooyu dëgg laa lay wax barki Serigne Touba xam nga la moo tax ma wax la papa parce que dafa baax dafa jox ñëpp respect. da ko cërale dafa gën te gis nit lu mu yelloo rek nga koy jox te moom loolu la yelloo parce que dafa doon koo xam ne kii dafa wut ak ñu bari. parce que Serigne Touba bagaay dafa baax estafam tubarfakalla macha allah ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu de passage man bi ma nee cëpp fi di lëmbal man moom laa njëkk a àndal moom laay lëmbalal ba mu neex ku ma xam ku ne ci pagaay mbay nga may xamee ndax maa fay lëmbal di fa toj ñëpp di ma fa xam ñëpp di ma fa fekk si. clip bi de moom moom toj nga garab gi moom. waa clip bi moom da koo yee ki euh, maanaam clip bi lu mu laajtee rek lañ ko jox pour clip bi. pour bi loolu bul si ñëw. <laughs> loolu dañ koy décortiquer de A à Z yow waxal ma rek yow si lëmbalu nañ nañ ma Ngoné bi rek non Ngoné Ndiaye géwél moom franchement parler moom moom dafa nekk koo xam ne tubarfakala macha allah ku baax ku yaatu ku ouverte nekk na koo xam ne kii aussi dafa gën parce que ñun bu fa demee dañu yaatal ñu lëmbal ba mu neex ñu bisiwaat vraiment moom moom ku baax la maa ngi koy aussi de passage mën li muy def nag tubarfakala macha allah kenn est-ce que mën nañ la xaar tey jii si benn jour si tëgg bi muy tëgg foofu noonu si restaurant mag boobu noonu. Euh, nekk euh, si dans les coins de Dakar nga ñëw euh, def sa li nga xamante ne mooy sa ambiance def lëmbal bu amul fenn est-ce que mën nañ la see xaar un jour. bu yeboo ngeen xaar ma ndax maa ngi ñëw te su ma dar su ma ne dar rek su ma nee dar ñëpp dinañ xam ne gaynde bu mag bi ñëw na. su ma nee dar ñëpp nañ xam ne gaynde bu mag bi ñu fa nekk mën nañ waaw mais man sama bopp laa xam ndax damaa sama bopp bii bii dama koo wóolu <laughs> nga ne dama koo wóolu laa la wax déggoo de danga ko déggoo ma bii dama koo mën te maa fi nekk ndax maa ko yëngal gaynde bu mag bi ngay waxal de d'accord euh, dañuy ñëw un tout petit si actualité ba tey si euh, lëmbal boobu li nga xamante ni Ngoné yaay Guèweul mu ngi koy def yow fecckat nga te jamono ji ñu ngi si commencé di gis ay di dégg ay wax yi sew si euh, li muy def ñu ne carrément kat ñenn ñi ne mm, moom dafa nekk mag yenn yi waru ko def ba pare dafay dajale ay jigéen ñiy def lëmbal soi-disant lëmbal te fekk na da ay ñaawteef ñooy am si loolu donc tey ji lu nu mel yow nan nga koy jàngatee si en tant que euh, fecckat Ngoné Ndiaye Géwël ku ñàkk fayda ku ñàkk classe du dugg pour ndax Ngoné am na ful la am na fayda respecté na boppam te ñu fay fecc aussi dañoo amee seen dignité bopp kon nag ñooñu di wax waxi yàq kese la mais duñ ko def li muy def parce que liggéeyam lay def nañ nit buy def liggéeyam ñu ni dafa bon nañ nit bu ñu muy dem ñu ni caga la wala reykatu nit la wala sàcc la loolu loolu baaxul kenn du ko def nit balaa ngay wax ci moom da ngay am lu la leer. yéen nag pour ñu taxé leen loolu dafa yomb est-ce que nekkul bi moo tax ñu leen di juger parfois. dama ni fii fecc mi lu mu laajte lañ koy jox. ba des lu ñàkk fayda ak wàcce sa personnalité fii amul benn fecckat bu fi ñàkk fayda wala mu ñàkk personnalité xam nga yàq nit bu jógee pour yàq rek moom yàq rek lay gis mais nit ku jógee defar rek defar rek lay def mais nañ bàyyi yàqatante bi ndax ñun ñëpp benn lañ lii yëpp dañ koy bàyyi dañ koy fàtte àdduna amul solo nañ bàyyi nit buy liggéey rek ñu ne diw nii la mel diw moo def lii diw moo def lii loolu amul sens te baaxul nañ bàyyi nit buy liggéey ñu koy yàqal lan lan la leen di emporter lan la lan la leen di indil lama mooy seen problème nañ bàyyi nit buy liggéey ñu wax. mooy le problème nit. est-ce que yéen doguma la est-ce que yéen feccikat yi mënoo leen suudewu ngeen xool nan ngeen di def pour gën a dooleel yéen seen bopp nga xamante ne duñ leen néewal doole parce que ñu xoolee Ndeye Gueye daanaka moom daan na def li nga xamante ne moom mooy comme lu Ngoné Ndiaye doon def fële ko feesal bañ ko doon indil ay problème ni mel guddi tawoon bi yëpp dégg nañ ko indil ko ay ba jamono ji mu arrêté woon ko est-ce que jotul tam ngeen ngeen suudewu yéen ñëpp ngeen nekk benn nga xamante ne benn say ngeen doon coow bu amee ngeen mën a jugoon doon daanoon kenn bañ leen a faagaagal. pourtant ñun ñëpp benn lañ de pourtant ñun ñëpp benn lañ c'est la même famille. mais daa feeñul di. ah xanaa yàqu ko gisul xanaa waaye man mii man xam naa si dara ndax ñun ñëpp ku nekk man ñi ma xam ak ñi ma nekkal ñuy wàllu fecc muy wàllu nii kii ko sa soit ku ci nekk da ngaa yéene sa bopp sa morom jàmm yéene sa morom salaam man loolu laa xam. man su ma nekkee ak yow ma xam ne yow yéenewu ma jàmm man dama lay baari ruus te gële à côté man dox sama dox ndax man loolu laa gëm man li ma fi indi kenn du ma ko tee am bu neexee yàlla suñu borom. parce que ban ban conseil ngay jox Ngoné Ndiaye Guèweul par rapport ak coow li am euh, est-ce que jàppoo ne dina wàññi si dina am impact bu bu négatif si li nga xamante ne moom lay def d'autant plus que muy commencé am ay buzz ba pare mu ngi ciy am li nga xamante ne moom mooy amaana mbëbëtam. wallaay al azim coowu Ngoné Ndiaye mi yaa ma ko wax billaay wallaay yëgu ma ko man yëgu ma ko mais am xam naa ne moom Ngoné Ndiaye Guèweul am na dignité am na personnalité boo xam ne bii. xanaa ñuy yàq de xanaa ñu yàq ci suuf waaye dañ ko wax ci kaw mu dégg ndax moom mat na boppam am na la am na fayda te xam na ki mu doon. loo koy conseillé. li ma koy conseil mooy que li xam ne moom la teg bëtam moom la bëgg mu continuer ci def li nga xam ne moo ko ñor muy kii mbalam bii mu nekk ci parce que ñiy ñëw fa lañ ko fekk te kuy dem fa nga koy bàyyi parce que li muy def dara ñaawu ci moom liggéeyam lay def. ku ci nekk boo xëyee yaa ngi ngir yàlla nañ dem liggéey ku nekk na nga liggéey sa liggéey nga bàyyi sa morom da mooy seen problème. ñoom daal ku bëgg war a am rek nga ne ko doo fi amee lan mooy seen problème. ñu ñëw si li nga xamante mooy clip pagaay Pagaye bi foofu la ñuy jeexalee gis ne macha allah teaser bi boobu mu génnee euh, daanaka si sa sa sa lëmbal partie boobu la ñuy dagg <laughs> dugal ko si xaw ngaa rey garab gi. te loolu gars yi fi mu ne ni ñoom da leen a yéem dañoo yàkkamti woon ñu jàkkaarloo yow ba ñu laaj la ko nga mun leen koo la nga mun leen ko décortiquer. xaw nga bay tourner clip. maanaam euh, ki nga xam ne mooy turne clip bi li mu laajtee rek moom ngay def te aussi clip bi dafa am lu muy laajtee voilà léegi clip bi nag ci li muy laajtee nag ci loolu nga koy fekk si nag voilà dëgg la nag mën nga liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba nga indi sa kiw bopp boo indee sa xalaatu bopp nga defee ko noonu léegi boo ko defee noonu nag ñoom aussi day fekk ñoom ci kii bi lay bokk yow yaay xool rek ñu mu rafetee rek nga defee noonu loolu sa idée bopp la. non clip bi moo ko laaj laajte ma def loolu. mais sa idée bopp la yaa xool garab gi rek nga dem songu. ah yaa tamit bàyyi sa yooyu waay. yaa ngi may tooñ de. ah dama lay laaj dama lay attaqué kay moom moom dara du yomb yaa xool garab gi ba mu neex la nga ko yow. loolu kii bi la rek clip bee ko laajtee rek ñu def loolu. yaa gis ne daal dina nekk dina ko neexal dina am dina am ambiance et tout. bi neex na ba pare avant loolu clip bi neex na ba pare. Ah, mais tamit yow. est-ce xam nga ne tey jii bu nit ñi bu ñuy xool yaa tax ñu koy xool de ma wax la loolu yow mos ngaa gis Pagaye Mbaye mu tourné clip clipam du neex déggoo ma la clip bii nii yow yaa tax ñi di ko seetaan bu yeboo de ngeen xaar leneen bu dee lool la ngeen xaaraat yu bari yu gën a yu gën a yu gën a toj loolu ngeen xaaral yu gën a garaaw yooyu lëmbal bi sexy na de waa mais xam nga sexy na féroce na pourtant man pourtant man lu sol lu jot laa sol ok ah, lu jot nga sol kay dëgg la mais li nga li c'est li nga sol jot na mais ki ka sol si jëm fa moo jonga ma waaw lool la yàlla dogal da koy nangu rek nga toog boo ko nangu rek yàlla fagaagal la parce <laughs> que Serigne Touba nee naa la gaynde bu mag bi la fu mu lëmbal ñëpp ay toog mm-hmm. loolu la yàlla dogal fi yàlla yoon en tout naa vraiment si si si dalal la fii macha allah ça a été un plaisir ñu waxtaan ak yow si actualité showbiz beeg euh, lëmbal beeg lu nu mel parce que tamit euh, c'est normal bu ñuy dégg yenn yi sew yi ñu xool ñenn ñi nga xamante ñu ngi si milieu bi ñu mën leen euh, dégg suñu micro ñoom ñu leeral lu ñu mel ñoom liggéey la ñuy def liggéey moom mooy seen mooy yéen moom ngeen gëm li lépp li nga xamante ñu ngi leen koy taxé comme ay nit ñu bon ak kat guddi yeeg lu nu mel yëpp nekkul loo xamante ne moom ngeen def liggéey la. wàcc soo leen paree tëdd noppalu continuer si nga xamante ne moom mooy li lay war ça a été di la bàyyi nga tàggatoo ak waa Kawtef Sénégal. Mhm. waaw maa ngi leen di ziar di leen wax kontaan am naa mbégte aussi ci dalal bi ngeen ma dalal parce que lii aussi parfois da siy baax pour xam nga xam ci nit ñi lan la ñuy doo xam nga ci lan la ñuy nekk loolu aussi da siy baax waaye yéen kenn du yéen macha allah mention spéciale à vous kontaan naa ñëpp yàlla na yàlla defal jàmm. lay xaar si yenn plateau yi xanaa. waa yéen waaw plateau yi moom maa ngi si koom aussi ak clip yu bees yi war a ñëwaat ci kanam am na clip yeneen clip yu ñëwaat ci kanam lëmbal yooyu yooyu lëmbal naa ko ba pare génnee rek moo ci des moom Sénégal moom day toj <laughs> kontaan nañ ba baax maa leen gën kontaan merci beaucoup à vous